waaw c'est que Tëngéej moo am problème fi mu toll nii parce que yàlla dafa dogal moom ay nit yoo xam ne dañ leen fal ñu nekk ay maire nekk fii ci dëkk bi mais période hivernage bi dañu gis ni ñoom ñëpp dañu abandonné dëkk bi daw soo xoolee tali bi poumon la ci Rufisque moo jaar fii moo jaar Dangu jaar Nimzaat dem HLM romb Kër Xaar Mbay dem fas Conteneur dem HLM dem Takku dem defaan mais soo xoolee dëkk bi kenn amul foo jaar Tëngéej fi mu toll nii anarchie mhm. anarchie totale lañ am ci ci lañ nekk mhm. beneen bi ci topp mooy embouteillage yi kenn mënul dugg Tëngéej mhm. ndax embouteillage layus bi ñu tëj ko tey jii maire yi nga xam ne tey jii dañ leen fi teg ñu war a liggéey li man dama jàpp ni liggéeyuñu donc nag loolu moo tax le mouvement déclic Tëngéej na leer jóg pour dénoncer loolu ñuy ñaan nag le président de la république Macky Sall su fekkee ni mu ngi ñuy xool dañ koy ñaan ni ko Tëngéej dafa am problème te Tëngéej il a gagné Rufisque à 54 pour cent la gagné Rufisque donc waa Rufisque bañu ñu président euh, Macky bëgg nañ ko mais maire yi ñu am c'est des pour man irresponsable parce que euh, li ñu war a def ci dëkk bi defuñu ko. Mhm. tey jii boo xoolee dañu fal ay maires yoo xam ni euh, acte trois bi tey jii moo leen fal mais acte trois bi sax dafa arrangé wul mhm. parce que maire bu nekk bi ñu la falee da ngay da ngay wut budget di wut xaalis li li lay li lay mooy wut xaalis. Mhm. tey jii man mënu ma d'accord un Omar Mané ñëw canal bi nga xam ne tey mooy fu moo tëngee fa la ndox bi yëpp di jaar pour dem ci géej bi banlieue rufisquoise bi yëpp fa la war jaar mu ñëw tabax ay cantine ci kaw canal bi wut benn maçon rek mu tabax ay canal ay ay cantine cantine vingt millions vingt cinq jaay def sa poche beneen maire bi nga xam ni mooy beneen maire bi nekk ci côté est bi ñëw jël centre ville bi def ko noonu keneen ak keneen def noonu donc nag tëngee tëngee fi mu ni nii a besoin de dëkk bi moo doxul dañu am ay donc moo tax ñun ñu créé benn mouvement boo xam ne mooy déclic

ñu bëri dañ euh, maire yu bëri mais mooy maire maire yi nga xam ne acte bi moo leen fal dañ jàppoon ni maire ville peut-être ñoom bu acte bi ñëwee ñoom ñooy ëpp doole maire ville bi moo tax ñu dem jël le maire daaw Niang ñëw teg ko mais bi ñu demee ba ci biir dañu gis nii loolu xam nga jàllul donc nag li ñu war a def dans un premier temps mooy ñu fexe ba force yëpp dajaloo ci maire bi nga xam ne moom mooy le le grand maire mooy maire ville bi nga xam ne tey jii lépp lu nit war a def ci benn ci benn ci benn ci benn koñ bala nga koy def nga am avalam tey jii gis nañ Badara Mama Yacine ci noor bi la dëkk tey jii bi mu fi nekkee au moins def na fi ay pavage xam nga def na fi ay affaire yu bëri mais ñii fi nekk depuis ñu ñëw ba léegi nii tey jii mu ngi nii foo fii ñëppay palaalin foo jaar da ngay tëb te ñun fii lañ juddoo fi lañ yoroo fi lañ màggee donc daf ñuy naqari ñu génn sur le plan national ak international foo dem buñ lay xas dañ la laan tëngéej dafa salte loolu moo ñu metti moo tax tey jii ñu posé suñu candidature pour euh, xam nga euh, demander jéem a changer li nga xam ni moom la population yi di dund fii. plan d'urgence. daanaka mu taa waaw non non fi mu toll nii tey jii ki nga xam ni moom la Sénégalais yi fal jox ko doole ji mooy le président de la république man suma xarit la tey jii président li ma koy ñaan mooy. tey jii Eiffage euh, nu ñu koy waxee euh, terre bi ñu ngi Ageroute ñu ngi fi terre bi ñu ngi koy liggéey instant bi boo xoolee fii yëpp am na ay latérite am na ay fi mu toll nii gouvernement bi am na fi ay travaux fii à Rufisque tey jii nag damay ñaan le président de la république mu profité nii ci occasion bi bu mu déglu benn maire Rufisque comme tey jii latérite bi mu ngi fi goudron baa ngi fi euh, ouvrier yaa ngi fi di liggéey na génn ay moyens route yi nga xam ne mooy mooy route principale yi nekk biir Tëngéej yëpp ñu mun ko defar muy tali dàngu bi tali Nimzaat bi tali bi jëm Arafat bi jëm Jokkul tali principal yëpp ñu defar ko parce que tey jii Tëngéej problème bi ñu am moom mooy problème mu assainissement. Mhm. kenn amul foo jaar dëkk bi salte na bëri na embouteillage xam nga nit ñi lekk ñu naanuñu tey jii bëri semaine passée bi mu tawee ba pare ah borom sareet yëpp dañ dem taxaw ci ville bi 1000 francs ngay joxe pour pour dem marché. sareet mhm. yi lay jàllale pour nga dem marché. Mhm. ñun daf ñuy metti parce que ñun doomu gox bi lañ ñun fu ñu mën a dem ci àddina bi lu ñu mën a am fu ñu mën a toll. ñun fii lañ jóge fii lañ dawalee fasu bant fi lañ fawee te loolu daf ñuy metti léegi nag ñi fi nekk te seen loxo dox jotul seen digg ginnaaw te ñun ñu juddoo fi màgge fi yàlla may ñu ay relation relation yi lañ bëgg a exploiter pour suñu dëkk donc nag dañuy tàllal loxo la président de la république Macky Sall tey jii comme euh, fi mu toll nii euh, Ageroute mu ngi liggéey euh, ñiy liggéey terre bi ñu ngi liggéey ah ñu profité ci occasion bi ñëw defar tali yi bala ñuy dem parce que tamit bu fekkee dañu bàyyi ba travaux yi jeex ñu bëgg def dafay dakaat beneen travaux bu bees mhm. mais comme gars yi ñu ngi ñu ngi fii pour le moment instant bi nañ profité ñi ci occasion bi pour latérite bi fi nekk xam nga moyens yi nga xam ni instant bi mu ngi fii pour Tëngéej ñu defar fii voilà ba pare tamit en même temps ñun noor bi ñu dëkk nii fii la stade bi nekk stade bi dafa am ay problème turbine bi ñu fa defar turbine bi dafa daanu turbine bu yàgg bi moo fi nekk boobu ba léegi nii te tey ji ñun yàlla jàppale nañu tabarkàlla ñoom ay relation yoo xam ni bis bu ñu yàlla dibbale woon tey ji ñu mën a jël fii suñ ko jëlee stade bi ci la ñuy njëkk jublu defar ko parce que stade bi mu amee ay problème tëj ay at yu bëri man mii bokk naa ci ñi nga xam ni ci ñi wax ba stade bi waat ci laa bokk. Mhm. donc nag damay profité nam tam occasion bi di remercier waa Nimzat parce que man fii laa waa Fass waa Das waa Dara Salaam ñëpp dàngu képp koo xam ni daal tey jii yaa ngi dëkk ci noor bi te nga jëpp nag en général mais ñi dëkk ci noor bi rawatina ñooñu maa ngi leen di ñaan ñu booloo doon benn. bokk ndey bokk bàyyi jàppale seen doom parce que tey ji tali bi bu ñu ko defaree rek tali bi tali bi bu ñu ko defaree rek mu baax comme ni ko waxee rek tey man damay tukki di dem dans les pays yëpp laay dem mais foo dem ci àddina bi maire yi 35 ans la ñu am euh, Rufisque rek moo am ay maire yu am 70 ans xam nga il faut ñu am ay maire jeunes yoo xam ni li population yi dund ñoom dañ koy xam mën ko mën ko mën ko mën ko mën ci dimbali voilà loolu c'est important